maa ngi nuyu mbokk internet yi di nuyu képp kuy seetaan Equivox di leen wax jàngeen jëf. waaw maa ngi saluer encore la maturité du peuple sénégalais et le fait qu'ils sont très démocrates. élection yi am ci jàmm ak salam li ci ñëpp tiitoon. ni que ni peut-être jour vote bi dina am ay dóorante ay rayante ay yooyu alhamdulilahi rabbil alamin j'ai toujours fait confiance à mon peuple parce que je sais que c'est un peuple mature. c'est un peuple boo xamante ni xamuñu dóorante xamuñu gaañante mais c'est un peuple boo xamante ni quand il doit dire non il va sortir dire non donc je salue vraiment euh, cette maturité et l'engagement surtout de la jeunesse sénégalaise et l'implication surtout euh, sur l'affaire de la chose publique waaw résultat yi ñu mën a xaar mooy yi sénégalais yëpp di xaar je parle des honnêtes sénégalais parce que on a eu un taux de participation bu élevé bu baax a baax a baax euh, de grâce il ne faut pas décourager ça ñu ngi ci lancé bu baax bu ñu décourager les sénégalais yi nga xamante ni dañoo génnoon massivement exprimer wu bu ñu leen décourager maanaam quand je dis bu ñu leen décourager mooy nul n'a le droit de confisquer le vote d'un citoyen ou le vote d'un peuple alors ñu ngi oowaat ñi nga xamante ni ñoo nekk ci yëf yi di leen wo di leen di leen di leen rafraîchiraat la mémoire di leen wax ni nañu fàtte seen égou yi te xam ni le pays est beau et dix de fois plus fort que ces individus muy cinq candidats yi demoon yëpp Sénégal moo leen gën a fort donc ñu leen di woo ci maturité bi nga xamante ni le peuple am nañ ko bi ñu waree génn voté génn nañ voté donc ñoom ñu ngi leen di woo ñu delloo loolu euh, le peuple am maturité bàyyi di fowee xelu sénégalais yi bëgg fi joxe ay résultats yoo xamante ni ça tient pas debout donc résultats yi ñëpp di xaar mooy deuxième tour inévitable deuxième tour par force by force luy am la lu war a am la su fekkente ni ñi nga xamante ni ñooy proclamé les résultats définitifs ñu leen di ndéganiku ñu def léegi benn conférence de presse ne fii ak vendredi yaakaar nañ ni dinañ pare mu nekk les magistrats ah ñun am nañ confiance ci magistrats yooyu xam nañ ni ils ne sont pas manipulables et ils ne seront pas manipulables ils ne vont pas laisser un individu di leen manipuler pour yàq la démocratie sénégalaise pour yàq Euh, la paix bi nga xamante ni mu ngi nekk di régner dans ce pays depuis belle lurette wala ñu yàq li nga xamante ni mooy la cohésion sociale bi am donc on fait confiance aux magistrats et on sait que dinañu tracer résultat yi nga xamante ni moom la askanu Sénégal yëpp di xaar muy deuxième tour. c'est inévitable parce que ñun ñëpp gis nañu xam nga du loo xamante ni kenn kese moom moo siégé wala moom moo détenir le monopole. des résultats de tous les bureaux de vote sénégalais yëpp maanaam candidat yëpp yóbbu woon nañ ñu leen siège ku ci nekk jot nga sa PV te li nga jot sa PV li mu wane mooy deuxième tour lu munul ñàkk la. non moi je fais allusion à la TFM et à la RTS ñoo ñu laay wax ah sama yoon newul ci France 24 France 24 nañu gérer seeni résultat dëkk nañ xaar ba seen élection. ñu gérer seeni résultat dëkk ils n'ont pas le droit de parler de nos résultats yoo xamante ni génnagul ku ko ci defit li nga def teguloo ko fenn mais je parle de presse yi nga xamante ni ñoom lañ dëkkal fii RTS nekk chaîne nationale sénégalais yëpp moom ko il n'a pas le droit de rouler pour une personne pour brûler ce pays le groupe de presse de Youssou Ndour n'ont pas aussi le droit di def seen yëfu xale yi ñu nekk di def et puis qu'ils arrêtent d'accuser l'opposition naan ay lu leen dal Ousmane Sonko la c'est pas vrai lu leen dal ñoom ñoo ko yóbbee seen bopp parce que ñoo taxaw devant tous les Sénégalais di joxe ay résultats yu amul kon nañu ko lu leen dal ñoom nañ ko gérer ñoom ñoo ko teg seen bopp mais buñ ko jiiñ benn personne euh, kër gi c'est un groupe constant constant très constant ku xam kër gi ñu formé ko en 1996 musul wàcc liñeem kër gi dafa mus a constant kër gi a toujours alerté kër gi a toujours dénoncé kër gi a toujours tiré sur le régime bu mu mën a doon ça date de ça commencé avec Diouf après avec Abdoulaye Wade et avec Macky Sall et demain le prochain président keneen ki muy doonaat on ne tire pas juste pour vouloir tirer mais on tire parce que li ñuy tirer lu ne fang dang la c'est des c'est c'est des c'est yoo xamante ni dañ koy ramasser sur les sénégalais sur le lambda ñu koy wax mu ne dàng fàng nit ki ñëw taxaw dig la ne la dinaa def cinq ans def sept ans tu as le droit de dénoncer ça nit ku la ne du ma signer benn décret buy nommé sama rok rak signé na sax décret yu nommé ay ay ay ay ay ay ay euh, ay ay euh, gorom tu as le droit de dénoncer ça nit ki ñëw déclarer ni la defaral naa la euh, teeru 35 kilomètres à 1400 milliards alors que Maroc am 350 kilomètres deux fois moins que ça tu as le droit de dénoncer ça nit ki la newoon dinaa la wutal 500 000 emplois par an euh, il a créé plus de 500 000 chômeurs tu as le droit de dénoncer ça nit ki la digoon di nga faju faju bu baax tey la ñu gën a ñàkk a faju tu as le droit de dénoncer ça alors c'est ce que kër gi a fait bu fekkee nag y a une autre personne bu ñëw taxaw am peut-être euh, opinion am na day wax sa n'engage que lui effectivement euh, c'est le peuple qui nous conditionne et c'est le peuple qui nous donne des pots de vin après parce que pot de vin yi mooy le peuple a besoin de quelqu'un qui parle pour lui am na lu mu bëgg ñu dégg ko mu am ku ko ko waxal soo ko rombee dina la jaajëf dina la bégee dina la remercier effectivement kon ay dóorkat lañ mais peuple bi kon ñoo ñuy jox pot de vin cest dire euh, voilà quoi am na déglo ku ma dul moroomam du ma moroomam du ma wax ci moom quoi je n'ai même pas envie de de de, de parler euh, d'une personne boo xamante ni du ma moroomam waa di woo ñëpp ci sérénité di woo ñëpp ci raison gardée di woo surtout ñi nga xamante ni ñoom ñooy les acteurs ci respect de la décision du peuple sénégalais surtout boobu di jox tous les sénégalais yi nga xamante ni voté woon nañ premier tour ñu dencaat seen carte bu baax comme niñ ko dencoon préparer deuxième touri pour le 24 mars donc euh, yàlla na jàmm yàgg Sénégal di wax aussi tout leader tout chef religieux ku am occasion aussi génn ñaar sénégalais yi Euh, fay quoi parce que kenn bëggul dëkk bi am fu mu versé wu. encore di interpeller waat suñu magistrat yi di leen wax ni ñun le peuple jox nañ leen suñu destin yaakaar nañ leen ci ñu tracé ngir yàlla lillaahi wa rasuuli buñ ñu décevoir franchement buñu ñu mës a décevoir ci solde wu benn doomu aadama